tey œuvre moom sur le ñoom ñoo dox sax yenn affaire yu bari ak ñeneen. Mhm. pour festival yeeg ñoom seen xam naa nen si ñëw. voilà tu vois donc loolu gën a tax sax ma indi la. parce que dama dëgg yaa ngi pare lu extra extraordinaire. dëgg la dëgg parce que yow sa wax bëriwul. Ah, waaw waaw ci lu am ful ak fayda ngay dox. tout à fait lan ngay pare. bon en fait maa ngi pare un album. Mhm. parce que li may yàgg showbiz yëpp aw ma album. Mhm. joué naa fu nekk tourné neen fu nekk ak gars yi mais album bi bon moo desoon. très bien léegi nag mixtape moom génn naa ko. un mixtape de cinq titres waaw. génn na cinq titres. macha allah donc mooy single yi ma defoon yëpp. Mhm. ma génn ko def ko mixtape et puis di ko jaay. super donc copain nekk France Kaaw ñoo tas affaire bi. ba mhm. ay festivalier daj ci. ñu ne kii kan la ñu ne ko bon kii c'est un sénégalais kii kii Faidherbe Gueye dëkk nekk Sénégal. ñu ne ana album non amul ne ko mooy foog ma defar album pour mun a bokk ci festival yi. donc à partir de là foofu laa ñu ne damay bind. ministère de la culture mi actuel ministre bi mi monsieur Aliou Sow. que je que document bi dem na. document bi dem na bu yàgg. ah oui. waaye ba Aliou ko téye Aliou Sow tontu na ma pour ma dem gis dage foofu la hmm. affaire yi cànge. non warul warul teg étage. ah mu ngi noonu de pendant cinq moment que am nga réponse ministre de la culture rek. daaj kan moo yor dossier bi. daaj nañu imputé dossier bi un certain Pala Mbaye. mu téye ko waaw pendant. cinq yaa ngi seetaan. waaw décrocher dossier bi parce que il a besoin de ça dafay liggéey. waay wala Sénégal lay représente. waay ok. donc moom moo moom leen imputé dossier bi mu téye ko pendant cinq mois. c'est pas normal doo ko gis doo ko dégg. yaa ngi koy woo téléphone. doo koy woo téléphone doo ko sax jot. Ah, louche na donc léegi nag booba gàmmu desee une semaine. Mhm. si la ma woolu par le biais de son CTS un de ses conseils techniques woo si un projet de 5 millions album de 12 titres. war a représenté fële festival yi nekk en Europe. en ak des grands artistes de nekk foofu. Mhm. mu yëkkati ay 500000 espèces di la ko jox. ah non non non non 500000 mënoo fi fii sax mënoo fi mënoo mënoo. mënoo si donc xam yow sa furle bi nga am jëloo ko. ba ko bañ non naa ko da koy jël téye ko. Mhm. lijjanti leneen. man da naa nu mu jël mais ñi mu àndoon ne ma non. jëlal xaalis bi ba pare da nga gedd da nga gedd voilà te kenn du gedd sa cër. fonds yooyu c'est alloué aux artistes culturels. Mhm. mais ñu ngi koy jox yenn artistes yi. Mhm. célébrité di bàyyi ñeneen ñi. c'est ce que c'est que pas. bu ma bëggee ah, bu ma bu ma déggee li nga wax ministre de la culture def na war a galam. waaw ba mettre la rapport ak. Euh, son avec celle d'âge. waaye budget yow bi nga demandé. Mhm. joxuñu la ko. déedéet joxuñu ko ñu dagg ko jox la 500000. 500000 ci 5 millions moo doon projet bi projet bi. léegi lan ngay lancé appel. lu may lancer appel maanaam nan xoolaat seen bopp parce que maa ngi interpellé le ministre de la culture Aliou Sow ku baax la. non très waaw très correct wax dëgg yàlla ku baax la mënuma goo wax si moom dara. Mhm. mais li yëg na affaire yi parce que def naa si ay ay vidéo affaire bi. Mhm. parce que du dëgg du yoon man doomu sénégalais laa. Mhm. nekk si réew mi di def musique. yaa ngi dëgg. bàyyi lépp bàyyi lépp voilà ak ñeneen sama ñeneen naataangoo. affilié à la SODAV yor kilifa suñu autorité di si teg seen tànk pourquoi. bu la leeree nii lépp fii lay leeree. waaw fii le ministre yi sera au courant. ah na na na si jóg gën a gën a gën a gën a gaawee. waaw ñu dénoncé waa jooju nga xam ne comment il s'appelle. Pala Mbaye. Pala Mbaye c'est le dage. yow mi nekk dage man Don Diego maa lay adressé sama parole. Mhm. lijjantil artiste bi mu dem liggéey li ji réewoo. ah en tout cas. représenté drapeau réewoo. bu dee 500000 lañ la jox leeral ko bu dee en tout cas mi mbir mi daal noonu la fa tëddee ba ñu lépp festival bi. Mhm. ay engagement yi ñu jëloon. Mhm. man samay propre moyen def naa ay répétition xam nga lu si répétition. fay studio bi jox musiciens yi paas. Mhm. jox bu ñu war dañuy lekk. trans communication. transport loolu yëpp ma géré ko en jot loolu. boobu yaa ngi xaar lépp. xaar lépp lépp ta boobu tas yaakaar. bii bàkkaar bu ñu ko gàddoo fu ñu jëm. no du yegg foofu. Ah. affaire bi dina réglé ci nii wala ci nale. parce que man je je ne comprends plus rien quoi dans ce hmm. pays là. du dëgg du yoon du du dëgg du yoon neen si neen si jóg taxaw si. Hmm. parce que man dama noonu dem si représenter Sénégal en tant que ambassadeur. Hmm. te loolu day doon sax ñoom lu baax si ñoom. tu vois ñun artiste ñoo ko financé albumam mu dem defar albumam. Hmm. génn na ko représenté. au moins ñu def liggéey. te ñi ma xam fii. xam na man du ma cuune. <laughs> man xam naa la. nga si dara ça des années. léegi ni al euh, mystère boobu nekk déglu tamit tubaab yi. xam nañ ne kii. du cuune du cuune yaa di potentiel. ba ñu ne kii na ni indi album pour album mun a bokk si festival yi. macha allah yaa xeeti loolu yomb na. trop di dëgg. pourquoi indi yi problème sama diggante ñoom. xaalisay de loo xam ni fu mu waree génn rek. il mu am tuuti coow. mais du yoon parce que xaalis boobu c'est c'est aux musiciens aux artistes. dañuy liggéey mais ndeyu xëy na il n'est pas au courant. maintenant il est au courant def nii baax na. maintenant yëg le ministre il au courant parce que moi l'interpelle gis nga le ministre de la culture monsieur Alioune Sow. Mhm. le jour de la fête de la musique. Mhm. man dama joué avant muy ñëw. ba mu ñëwee dafa tenir benn discours boo xam ne man dafa ma dafa ma gën dafa renforcer sama gëm-gëm si moom dafa ne les artistes déposer leen seen dossiers yi seen mm-hmm. projet on va les financer de dix millions à cinquante millions yaa ngi dégg orchestre bu nekkoon foofu ñu joué fa ba sama benn grand xaadim mm-hmm. jël parole ne monsieur le maire monsieur le ministre autant pour moi Aliou Sow ñi ngi joué mais suñu xel bi dafa jox parce que tabaski ñu ngi ñëw xar nañ soxla. Hmm. Aliou Sow keroog il a fait un geste boo xam ne vraiment man daf ma. non tu vois donc nag lii. voilà lii war na see jóg ñu saafara lii ñu dem liggéey bu soobee yàlla dégg bu ñu defee ñu pare ñu def rapport. très bien ah, wax dëgg yàlla 500000 moom. Hmm. vraiment muy loolu. et puis dage bi na xoolaat boppam. parce que da ko fa teg pour askan bi. arrogance artiste bari kontaan hmm. arrogance bu ñu woote. xam nga c'est pas ça. ñun ak de la culture dañoo war a ni en parfaite mais pas à couteau tiré nekk fi nangam ça c'est pas bon. Mhm. loolu laa leen koy wax parce que il doit être joignable moom dafa ma waroon sax woo. voilà ma déglu ma. même bu ma joxul cinq cinq millions yëpp mun na benn trois millions ngi nii. nu mu demee nangam nangam. le reste nga débrouillé wu. mais cinq cent mille ak ni ma ko joxee. Mhm. vraiment saaga la. Mhm. insulte la voilà te loolu. te loolu nag moom vraiment c'est pas c'est pas du tout c'est pas du tout catholique. c'est pas correct. donc maa ñaan daal. Mhm. ñun attaqué ñu kenn gratuitement. Mhm. mën nañu def loo xam ne je trouve que c'est une injustice et il faut réparer les injustices. très bien bi c'est un pays de droit. de démocratie. oui yoon fi. oui yaa ngi dëgg. oui ñi sa kaw nañu yërëm ñu si suuf. mooy dëgg mais bu ñu jël affaire boobu rek attribué ko à certaines célébrités. Mhm. jeex na. ay complexe lañ de. ça c' loolu moom artiste célébrité bu demoon dina tag ñu rek. ñu réglé ko affaire bi ñu koy réglé. ñu koy réglé dañ ko réglé nag yéen ñii. ngeen comme ñoom. kenn gënu leen ndey kenn gënu leen bàyyi. tout à fait. merci beaucoup actuellement maa mhm. ngi préparé benn single. voilà boobu laa bi mi ngi tudd jàmm. jàmm Sénégal jàmm. voilà ñi ngi dem se élection présidentielle. waaw. dañu bëgg yëpp fi dal compétition bu xam ne c'est légal. que le meilleur gagne yaa ngi dégg. ñu bañ a bu jàmm amulee. Mhm. dara du sotti. c'est clair y aura tout le monde sera perdant. Mhm. y aura pas de vainqueur. Mhm. yaa ngi dégg. jàmm nag Sénégal Sénégal dëkku teranga la. mais mi ngi bëgg a nekk nag dëkku. li ma bañ a tudd. waay euh, ma ko tudd waaw mi ngi koy bëgg a nekk. waxuma sax terrorisme mais dëkk boobu dëkk teranga moom teranga rek la ko nan ko war a. nañ ko wane nañ ko wane. si kaw ba si suuf. mooy dëkk ñu respecté nit ñi. Mhm. respecte dans ce pays là. parce que ñu doon respecté suñu kilifa. Mhm. bëgg leen suñu politiciens yi. Mhm. am na ko ma ne mais ñoo seet artistes yi ngeen a bari ma ne mais politiciens yéen ëpp artistes ñoo ëpp fuuf waaw kon loolu du lay. léegi bu ñu ba ba valider sa dossier. wax dëgg yàlla dañuy jëf day mat. Mm-hmm. mais yaakaar yi tas nañ ko. Mm-hmm. seen musiciens yi seen yaakaar tas na. Mm-hmm. ñu yaakaar suñu ñun yaakaar yi tas na. te wax dëgg yàlla monsieur ministre Aliou Sow ñu ko fii pour muy tas yaakaar artistes yi. ndeysaan il est très correct. voilà donc dama bëgg mu résoudre loolu. parce que ñun ba léegi ñu ngi xaar. génn na nag def du suñu du lu gënal. mais monsieur paala mbay moo nu pousse foofu. très bien monsieur Palla Mbaye waaw parce que waaw parce que bu ñu recevoir. voilà bu dee sax lañ ko jox na ko leeral. na ko leeral na génn na wax na ko leeral. donc man ñun loolu nañuy wax saagawuñu kenn xasuñu kenn. tooñuñu kenn nu kenn. ci dëgg rek fii mooy fii. fii mooy leer léppay leer avec Tom Diego Show. voilà très bien. di nuyu tamit euh, Manu Yasala mi ngi préparé festival bu mag a mag a mag ci banlieue bi festival le 11 le 10 le 11 le 12. di di di di culture sénégalaise. loolu am na solo trop. banlieue bi tamit ay artistes kese kese kese la. boo gisee may feeñal ñi feeñagul. waaw soxlawuma ñi feeñ ba pare. ñi am talent fe te feeñaguñu. Mhm. Euh, manu yaa salaamu mi. dina feeñal yépp y aura tout. tous les karab karab culture sénégalaise. dina am ci festival ba Diamaguène Thiaroye Azur. alors di nuyu Ibra Seck directeur des carrières moom tamit. au ministère des mines de la géologie moom it ñu ngi koy nuyu baax a baax de l'association géologue du Sénégal moom tamit ku bëgg émission bi la ku may jàppaleel ci émission bi la nee na dina ñëw sponsoriser émission bi muy responsable politique APR fële ca Grand Yoff di liggéey lu extraordinaire ci côté social di oh. liggéey lu extraordinaire ci côté doomu Grand Yoff yi mais loolu leen soxla très bien alors Max Bile Santos lan ngay wax gars bon mot de la fin. le mot de la fin c' di nuyu ah, di la sant yow. d' abord di la di la sant di nuyu yow sama waaye nga. ñoo mm. bokk suñu dammeel wallaay yàgg nañ préparer li mais xëy na mm-hmm. teel ko yàlla dogal. waaw di nuyu Fafana tamit très. Euh, euh, ah oui Fafana xam naa ko depuis. moo yor sama liggéey bi yëpp. ah non extra mention spéciale Fafana et pour toute l' de Sen Show. Mm-hmm. di nuyu sama fa ma dëkk sama sama sama kër. Mm-hmm. sama waa kër fi ñu dëkk. leen. Birame Touré du ko wan sax mais mais Birame léeg ma jalgati bi laa eh, da nga ko rus mais Birame Birame gën gis moom tamit waaw et puis ñu ngi les hommes de bonne volonté voilà ñun ku ñëw commencé que ci Dame Dieng moo voilà moom day soutenir di jàppale artistes yi jàppale artistes ñu ñëw ni jàppale si produit bi album bi génn pour yenn pour festival yi mhm. parce que at yi gaaw na mhm, ñoom bu ñu defee baax na bu ñu def baax na les bonnes volontés sont là mhm. Mhm. yàlla du tëj buñ tëj parentère mhm. tey yàlla l'exemple de Fada Freddy sama mbokk la jàng sama wooy gis naa ko j'ai aimé j'ai sama mbokk la sama xarit la raay bu am réew joxu ko réewam jox ko ko de. waaw feneen moo ko joxe France. ak Viviane mi ne Canada. la même chose dem ba Rwanda. Rwanda reyante ak ñoom. tu donc ma ne ko tu es la reine de la musique africaine. tout à fait léegi nag Sénégal nañ ñu sargal seen i doom. mooy dëgg nañ leen fulal balaa ñeneen di leen jël di leen fulal. mooy dëgg ñuy ëllëg ñuy rëccu. di ñaanal tamit Wally Seck mi ngi ci yoon boobu. ah bon une très bonne euh, bi. Wally Seck moom tamit moom moom tamit bëgg naa lancer message si moom. parce que sama mbokk la xamante wuñu ah. mais dinaa reprendre une de ses chansons en version reggae invité ko si. ah day ñëw jantal boy loolu naa ko naa ko teg sa loxo. voilà naa ko teg sa loxo mu ñëw. Mm-hmm. sama mbokk la mm-hmm. et eh, di ko jaale profité di ko jaale magam jooju ak moom yi di jaale aussi papam con euh, se ñu ngi koy ba léegi te noppeeguñu mm-hmm. donc di nuyu cité Damel di nuyu jëppal derkale bi ma dëkk sama commune di nuyu parcelle un dix-neuf di nuyu nord man nag dëkk naa fu ne Kër Massar voilà nante nga nag maa nga Tëngéej. jaar waaw Tëngéej maa ngi di nuyu aussi. Ah, donc la famille kan. Hmm. maam bi maa la famille. et eh, j' am na ku nuyu. madame si madame si. Eh, oui euh, jabaru monsieur monsieur si. Coulibaly eh, si voilà non non euh, kunun moom nee na da laa bëggal si jotali naa sa yóbbante. la famille la famille ji euh, Badji. Mm-hmm, hmm? Badji la famille voilà la famille Sall. Sall foofu voilà la famille. Euh, Diallo kamara ah mhm. donc duñu ak ñi ma tudd yëpp la famille aussi euh, attention. Mhm. la famille euh, Ndiaye. ñoom ñoom sama boy yi nekk foofu ñoom ñoom ñoom ñoom Cheikh. tu vois donc di nuyu aussi Sénégal. waaw jàmm la ñu bëgg la fi ñëpp. xam te extraordinaire loo xam ne jàmm nga ko. jàmm laa ko tuddee war na génn normalement fi ak fin de mois bi novembre. ñu ngi koy job ñu ngi studio. Mhm. di ko kii puis am nañu si jàpp les bonnes volontés. macha ñu ngi fi les femmes les femmes de de de mhm. volonté aussi ñu ngi fi. Mhm. ci yaa ngi dégg. ñu jàpp si album bi parce que il est temps que Max Youssoupha génn album fu ne joué naa fa macha allah. Mhm. j'ai fait pas mal de scènes pas mal de mhm. festivals ici et mhm. hors de Dakar. modestement sans bruit ni tambour ni trompette. man yow laa gis rastaman regeman bu dul tux bon doo naan sangara doo dóor ay assis. waaw léegi foofu naa fa ñëw tuuti. parce que rasta ne veut pas dire tux yamba naan sangara et defi naka. Bob Marley. non maa ngi ñëw. Bob Marley les rasta tux yamba culture la si ñoom. attention très bien déglu leen bu baax. ñoo rase yi tox yamba culture la si ñoom la culture sénégalaise est différente de la culture jamaïcaine. la culture sénégalaise est différente de la culture française. la culture sénégalaise est différente la culture américaine. donc ku nekk ak say say aada. sa cosaan neen xam ne loolu la mais ñoom duñu duñu naan sàngara. lool la mooy Youssou Ndour neexee. duñu naan sàngara. Mm-hmm. chanvre indien d'où le nom chanvre indien ñoo ko yoroon di ko tox à des mm. heures de méditation. Mm-hmm. loolu indi euh, foofu la affaire bi di jógee. Ah. chanvre indien doo dégg naan chanvre indien. indien ñoo ko doon tox. moo tax mu porté le nom. Mm. chanvre indien. yamba garab la buy sax plante la. te dëgg naa garab la buy faj yamba day faj day faj ëpp tuuru mais ñun fii Sénégal suñu législation daf ko interdit. foog ñu daaju. donc dafa naan kuñ si jàpp nag yow ak justice la. ñëw waaw dégg reggae c'est une musique lu baax la nag yamba waaw nga bëgg lekk apéro jam benn joint nii da ngay lekk de. ah loolu man xaw ma si dara. <laughs> man alhamdulilah musuma tux cigarette musuma tux yamba ah. musuma naan sàngara loolu sant naa ci yàlla cigarette xaw ma mu mel. ma loolu gën parce que ñi bëgg daal la vie privée des gens c'est la vie kii chacun est libre. oui ku nekk libre nga def sa life nga kii mais. pour le message de manière générale. Mm-hmm. pour nga xam. Mm-hmm. race yi ñoom chanvre indien sa fa bokk seen culture. te ngeen di lancer message yu am et puis le message qui est beaucoup plus important. Mm-hmm. il faudrait pas que euh, Don Diego. la fumée du chanvre indien enfume le message du reggae. Oh! nga la delluwaat fa. la fumée du message du reggae. parce que le message du reggae universel c' au dessus de tout au delà de tout. wala da nga ko doon. dama ko doon jànguma ko dama ko doon. ci kan sama baay. macha allah sa papa mu tuddoon. Imsi Gueye foo Imsi Gueye ñoom mag ñoo ko xam. Mhm. ñoom Amala Doucouré. Mhm. ñoom euh, Aline Diop. Mhm. RSI daje naa moom temps Tamaguette Wade. Tamaguette Wade ñoom ñoo xam kooku. ay Tonor Dieng paix à son âme ak Khalil Gueye. Khalil oh, tonton Khalil waaw il venait chez nous tonton Khalil ñoo ñoo xam sama papa. man musique su moom laa ko doon sama papa Côte la nekkoon. Sénégal bu juddoo foofu di jàmban Côte d'Ivoire ak Sénégal. macha allah yaa ngi dégg. nekk tamit entrepreneur Mhm. sama paa maa ngi ko woowee l'homme l'homme l'homme aux douze métiers. l'homme aux douze métiers. mooy mooy paa bi donc yàlla na ay yàlla xippe ajana moom ñi fa fekk ak ñi ko fekk si daraje seen mhm. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñi fi nekk ñeneen fi yàlla ñu yàgg fi te ànd ak wër mhm. te def lu baax di dimbalante di dimbalante di dimbalante c'est important di julli ci Yonent bi tamit sallallahu alayhi wa sallam waaw di xiir xale yi dugal leen ci diine effectivement xale yi xam diine xam yàlla ak Yonent bi xam valeur u yàlla xam valeur yàlla buntam mooy yonent bi seet naa Muhammad moom moom la Cheikh Hadj Malick def am li mu moom la Cheikh Amadou Bamba def xam ko Cheikh Cheikh euh, Ibrahima Niass suñu maam doon Baye Niass waaw moom ñëpp ku baax maam li maamu bu konta Niass ñoom ñëpp buntu bi waaw ñoom ñëpp ak ak ak ma ca Paal. waaw voilà dégg naa ko tu vois. Mhm. ñoom ñëpp si yonent bi nañ jaar ba am nañu am. donc Sénégal dëkk bu am richesse la. dëkk bu mhm. am chance la. nañu bokk ndey bokk bàyyi. tappe xol xaalis du dara dañuy dee ba ko fi. te ku ñu recommandé ak nit nga teg ci yoon. nga teg ci yoon. bàyyi jàdd gauche yi. parce que tamit. leen ñaara fi ne ak njaaroo yu bëri <laughs> lépp léegi fii ñaari ñaar bi mën a am c'est-à-dire mooy y a le bien et la y a le mal. Mhm. ñi opté pour le chemin du bien. yàlla na si yàlla ñu opté pour nekk le chemin du mal te teyuñu ko yàlla na yàlla xipp ba ñu ñëw. si le bon chemin yàlla mooy borom jaam yi. Mhm. te léegi le temps passe vite. Mhm. et la mort est devant nous nous ne sommes pas éternels. wallaay. nañu dimbalante di yërmante di jàppalante. kon de man dinaa dee. non milliardaire. yow da ngay dee. le milliardaire waaw même le pauvre. qui n'a absolument rien dafay dee. mën nañ dee waaw gën gi mu def gën gi mu def mi dee nag. ah ko gën. kon sama nami ma noppi. voilà kon comme gënoo ko nag kon ñëppay dee. alhamdulilah suñu bàyyi suñu maam ñëpp. alors message bi ngay lancé mooy. nañu jàppalante. nañu jàppalante soutenir artistes yi. voilà ngay wax ministre de la culture. Mm, mm. message bi mi ngi noonu dégg nga ko. dégg na ko defal li nga war a def. Mm-hmm. yow it nga continuer sa liggéey sama liggéey. alors mi ngi noonu kii mooy Max Bile Santos Max Youssoufa ñu koy ñaanal une très très très bonne continuation boo mm. kalee beneen clip ñu tëjee clip am boobu. waaw ABC di jox kaay rendez-vous ABC bi mm-hmm. Max. Mm-hmm. ma bàyyi la nga a musique bi Alioune Badara jëm ko ko. <laughs>